ñuy suivre ci l'Evidence TV mbégte contentement la am retrouver waat leen seen émission la grande question alors ñu ñëw ci format bu bees nga xam ne cette fois ci débat lay nekk ak invité de marque mais également àndaale benn chroniqueur bi nga xam ne ni miin ngeen ko ci kër gi di ngeen ko gis tuuti rek alors pour numéro bu bees bi nag ñu fas yéene ci ànd ak kii di Moustapha Dramé Moustapha Dramé nag mooy président mouvement bi di Sénégal au cœur c'est un ancien du parti Rewmi ndaxte moo président de la commission communication yoroon wàllum réussi parti boobu di réew mi alors fu mu ne nii démissionné na moo ngi fii ci mouvance présidentielle lay soutenir ci élection bi nga xam ne ci la jëm muy élection législative dina ñëw si loolu yëpp ah laataa ñu dugg si waxtaan bi Moussa ñu nuyu suñu chroniqueur laataa ñu introduire l'invité là Moussa. voilà Sadio vraiment merci beaucoup maa ngi lay sant di la gërëm ci invitation bi di nuyu aussi mboolem suñu internetu EVTV. alors di dalal aussi suñu gan gi Moustapha Dramé. alors Moustapha alors alors ñu ñëw ci invité bi muy Moustapha Dramé comme nuñ la ko présenté monsieur Dramé ñu lay bàyyi nga nuyu ak sunu internet yi. maa ngi leen nuyu di leen sant di leen remercier pour invitation bi. et en plus premier format. di mm-hmm. nouvelle émission. kontaan na mm-hmm. effectivement man maay Moustapha Dramé ancien. Euh, mm-hmm. secretaire général de Réumi France. Réumi France. Réumi France, voilà. Okay. Du, du Réumi Yep. Hein, France. Mm -hmm. Et en même temps, ancien président de la communication de Réumi France mhm. et de Réumi Diaspora Stratégie. Mhm. Le Yep, ce sont des filiales plus ou moins de Réumi en Europe. ok ok macha allah mu ancien bi daal moo ñu ciy gën a intéressé Moussa xam naa ne tey moom <laughs> du yomb de Moussa waaw vraiment c'est parti pour une émission très très délicieuse. waaw <laughs> ah, parce que gars yi daal mel nañ <laughs> wax fii dina am njëriñ quoi. alors mais bon je suis prêt à tout nañ dem. waaw ah, pare nga lépp waaw donc monsieur Dramé nañ lay bàyyi d'abord nga ñëw si sa parcours politique. politique également yaay responsable politique nga fële ci Marsassoum dans la Casamance alors mun nga ñëw un peu si sa parcours politique pour au moins euh, internautes yi suivre si l'évidence TV ñu mën a xam yaay kan exactement. effectivement c'est très important en effet man maay Moustapha Dramé je vis en Europe may France depuis 81 82 euh, foofu laa commencé politique je suis devenu idiste en bi ma gis ne. li ñu teg Idrissa Seck c' était de l'injustice de la part du président Abdoulaye Wade avec tout ce que Idi a fait dama xool gis seetaan ma ne il mérite pas ça il pas ce traitement là donc injustice boobu moo tax man ma dugg politique en disant je vais défendre cet homme parce que c'est un homme d'État lii moo ma tax dugg politique c'est pas un problème idéologique c'est pas un problème de n'importe non non situation d'injustice bi mu doon subir moo ma tax jóg je suis devenu IDIS donc en 2000. kon jamono Santhie Thiès quoi. voilà c'est ça loolu boobu loolu la après nag je suis devenu dans le temps réewmiste dañu def élection du bureau en France ma nekk secrétaire général élu à 92 pour cent. je remercie et salue d'ailleurs sama xarit yi mooy Khalifa ñoom Khalifa Gassama ñoom Mapate ñoom euh, Tina ñoom ñëpp euh, Pape euh, Pape Ndoye ñoom ñëpp ñoo àndoon c'était très difficile boobu temps parce que Wade était une puissance boobu metti woon na trop défendre Idrissa Seck c'était un vrai sacerdoce boobu temps daal donc je suis devenu réewmiste noonu juste de 2004 jusqu'à 2024 trois jours après les élections et les résultats laa ko di sama lettre de démission ma ne ko léegi nag j'ai défendu l'idisme j'ai défendu le réwmisme j'ai défendu la réwmitude maanaam attitude bi ñu war a am léegi sës naa li tout ce que li ma mën a jox réew mi jox naa ko li ma la mën a apporter je pense que def naa ko fu mu ne nii je compte voler de mes propres ailes ou alors maa ngi jéem a ubbi ñeneen porte foofu laa démissionné nag ma dem voilà c'est c'est ce qui s'est passé ma dem commencé tabax kii bi euh, courant bi le Sénégal au cœur. dinañ ci Sénégal moo ma ñor. dinañ ñëw ci loolu noonu je mais démission bi lan moo ko waral exactement. Euh, démission bi euh, y a plusieurs explications explications yi bari nañu causes yi bari nañu mais je vais m'arrêter sur deux ou trois c'est-à-dire que premièrement dama yaakaar ne. li ma mën a def ci réew mi au niveau apport massification au niveau apport sensibilisation au niveau apport électorat dama yaakaar ne li ma ko jox li ma jox réew mi li ma investir ci réew mi mënatuma ko donc ça c'est un atout c'est je dirais une sensation personnelle une évaluation personnelle deuxième bi mooy euh, je suis arrivé à un moment où euh, je comprenais plus mon leader je comprenais plus je comprenais pas parce que euh, bi ma ko gisee en 2019 après les élections waxtaan ak moom ma ne ko ah président on a perdu les élections léegi lan la ñuy def mu ne ma Moustapha ma conviction et mes intentions sont intactes maanaam li ma gëm ba léegi pour nekk président mu ci man donc bëgg naa ñu ànd jusqu'en 2024 ma ne ko hmm, les conditions ont changé nag il faut ñu moytu il faut ñu wàcc terrain bi il faut ñu def sensibilisation il y a une phrase que j'ai employée dama ko ne il faudrait que chaque grain de sable de chaque coin du Sénégal sente ton parfum maanaam grain de sable bu ne dans n'importe quel coin bu Sénégal war na xam ne Idrissa Seck a ngi fii d'accord loolu laa ko wax bi ma voyagé tamit ñëw ne ko j'ai fait le tour de la Casamance dem naa Bignona dem naa Ziguinchor dem naa Sédhiou dem naa Marsassoum la jogee nii mais li ma dégg c'est que gars yi bëgg nañu la trop jusqu'à présent les Sénégalais ont faim de toi les Sénégalais on soif de toit mais il faut nga dem gisi leen wàcc sur le terrain wàcc sur le terrain ma ne loolu jot na bon après les circonstances ont fait que mënul ñëw en Casamance il n'est pas venu pour les campagne ñi bari ñi ma toppoon ils n'ont plus cru en lui donc ma xam ne ñooñu mënu ma mënatuma leen convaincre pour ñu ànd ak moom bon balaa may nekk un boulet balaa may nekk une force négative ma ne tey naa bàyyi rek dem voilà Moussa euh, bi nga déglu Moustapha Dramé mhm. euh, parcours am mais également euh, li mu liggéey réew mi lan nga ko am comme question boo koy laaj waaw bon dama bëgg rek Moustapha vraiment ñu lay gërëm di la sant yow membre réew mi bu amoon solo nga réew bi nag moom mu ngi nekkoon parti boo xam ne daanaka Idrissa Seck mu moom ko taxawal bi muy génn PDS bi mu amee problème bi mu génnee prison. ci la taxawal réew mi réew mi nekkoon un parti d' avenir. Ah. amoon avenir boo xam ne réew bi je peux dire que faisait rêver. Sénégalais bëgg ko mu dem élection def test. daanaka moo jëloon deuxième sax. naa ñëpp deux sax élection 2007 yi Ousmane euh, Idrissa Seck moo ko waroon gagné. ñu dem depuis deux mille 2007 réew mi dafa nekk euh, dans le creux. de la vague nekk ci difficulté électoral am di effrité wu d'année en année di daanu di daanu ba fi mu nekk nii moom vraiment ñëpp gis nañ ni sax réew mi moom mu ngi aux oubliettes bokkatul daal ci landerneau politique bi vu que élection bi Ousmane euh, bu Idrissa Seck am ci élection yi passé newu doon score bu honorable trop lan tey tey boo doon joxe explication ci loolu ngolaat boobu noonu nga xam ne réew mi et son leader def nañ ko lan lan moo koy expliquer. ba écoute, analyse bi nga def nii c'est même pas une question parce que da nga traduire ce qu'on appelle la vraie dialectique maanaam vraie histoire de ce qui s'est passé pour réew mi li nga wax ni moom mooy dëgg lii du question sax dëgg la c'est vrai que parce que réew mi euh, c'est un réservoir un réservoir de compétences, réservoir d'intellectuels, des jeunes qui avaient soif, des jeunes qui savaient, des jeunes qui avaient envie de donner autour d'un homme qui avait une grandeur, autour d'un homme qui avait de l'audience, qui avait un leadership, autour d'un homme qui savait. et quand il ne savait pas il savait faire savoir pour ñu xam ko xam la am te il avait accepté de partager ça avec les jeunes mais au fil du temps li ñu war a jàng et ça c'est pas que pour réew mi rek il faut que les gens comprennent que modèle politique bi ça a changé léegi c'est le pragmatisme qui l'emporte sur l'idéologie le pragmatisme qui l'emporte sur euh, comment on appelle l'appartenance le pragmatisme qui l'emporte sur je dirais la richesse le pragmatisme non léegi politique bi il faut que tu descendes sur le terrain nga xam li fa xew bu doo wàcce sur le terrain il faut nga am ñi nga xam ne ñoom lay jox yóbbante yi te boo jotee yobante yi il faut nga xam noo koy liggéeye avant dans la politique dans la scène politique on c'était par idéologie les marxistes les socialistes les libéraux ainsi de suite les maoïstes les trotskistes mais on est dans un monde mondialisé fi nga xam ne avec les réseaux sociaux tous les grandes références qu'on avait en politique ont été basculées. Donc ça veut dire que l'homme d'hier n'est pas l'homme d'aujourd'hui. l'homme d'hier n'est pas l'homme d'aujourd'hui donc loolu li ma wax ni du seulement Idrissa Seck lépp laay wax mais c'est pour montrer que ci yoon boobu la ñu jaar pour en arriver à la décadence donc tu vois bon je dis décadence dañ ma baal c'est pas la décadence mais quand un homme aussi puissant aussi fort un parti aussi fort se retrouve avec un un taux de 1,7 je ne plus xam nga bon loolu c'est pas honorable dëgg yàlla c'est pas honorable quoi voilà donc je vais pas parler de décadence mais nag vraiment on a chuté du point de vue électoral bon donc jàngat boobu war nañu ko xam et war nañu ko seetaat on ne peut plus faire la politique en attendant non c'est pas possible on fait la politique en activant non en réactivant réaction jeex na da ngay dem il faut être proactif loolu moo am léegi on peut plus faire la politique en restant dans un salon jeex na takk bu dee tamit da ngay toog ci salon il faudrait nga utiliser réseaux sociaux yi constamment silence baax na baax na trop parce que c'est la sagesse mais à un moment donné quand les grands événements de la vie se bousculent quand le monde mondialisé se euh, est perturbé quand les jeunes ont d'autres visions que ce qu'on avait avant on ne peut plus être le même. effectivement et on se lave jamais deux fois dans le même fleuve. Euh, loolu jeex na donc du coup. Réumi s'est retrouvé dans une situation ou bien continuer sous, cette, sous ce modèle-là ou changer de paramètre et de paradigme. Malheureusement, ni l'un ni l'autre n'ont été faits à un moment donné. mes amis euh, de Réumi. Je ne suis pas en train de critiquer, c'est une analyse que je fais parce que j'ai appris beaucoup et j'ai des amis dans Réumi. C'est une analyse que je fais parce que je suis interpellé sur cette question-là de, de, de la Casamance jusqu'à Paris je suis interpellé sur cette question là pourquoi tu as attendu autant à Rewmi mënoon nga dem mënoon nga dem mënoon nga dem mënoon nga qu'est-ce que tu as perdu ton donc je fais une analyse pour que mu njëriñu tu vois loolu laay def mais je critique pas bon léegi euh, ma ne attention j'ai été en Casamance j'ai été à Bignona je suis dans une même famille avant mën nga gis pa bi il est libéral l'oncle est libéral la mère est libérale la sœur est libérale le petit frère est libéral ma ne léegi boo demee dans la même famille on trouve on, on trouve toutes les appartenances c'est des appartenances multiples kan nga mën a convaincre bàyyi keneen kan nga mën a xëcc pour mu ñëw ci yow bàyyi keneen là il faut que tu sois là il faut qu'on soit là loolu moo tax man chaque année damay ñëw fii Sénégal au minimum deux fois te saa yu ma ñëwee damay def meeting fii Paris eh pardon Dakar may def deux ou trois meetings à Marsassoum quand j'étais dans Rewmi quand j'étais dans et tout ça à mes frais hein tout ça à mes frais tout ça à mes frais ay t-shirt ay banderole et les repas que j'organise les boîtes li ma li ma ci def ci réew mi depuis 2004 jusqu'à léegi billahi wallahi taalaay musuma ci lekk réew mi monsieur Dramé ma ajouté benn question foofu euh, est-ce que la euh, est-ce que problème bi nekkul euh, la personne du leader maanaam Idrissa Seck ndaxte comme ni nga ko waxee def nga plus de dix ans ak moom ah. départ yi vingt ans même plus waaw yi yàgg na Thierno Bocoum nekkoon na fa Déthié Fall nekkoon na fa Abdourahmane Diouf nekkoon na fa mu naan laa ni plus d'une dizaine yoo xam c'est des ténors des têtes bien faites ñi nga xam ne ñëpp jóge nañ fa comme ni nga ko waxoon réservoir la est-ce mais finalement est-ce que problème ni nekkul leader bi nekk ci tête bi ah. alors li nga wax ni dëgg la y a une succession de départ et puis yokk nga ci benn phrase nga ne des têtes bien faites ñi nga lim nii ñëpp ils sont arrivés dans Rewmi les têtes bien faites mais bi ñuy jógee Rewmi les têtes étaient encore très bien faites. <laughs> ils ont appris là-bas ils ont appris. Uh-huh. parce que Idrissa Seck boo ko fréquenté boo ko déglu. je ne sais pas ndax moom dina déglu nit ñi mais en tout ko déglu en général tu apprends loolu moom kenn mënu ko wéddi donc ils sont partis ils sont arrivés mieux et ils sont partis peut-être meilleurs loolu moom dégg bon maintenant est-ce que c'est la faute des leaders mais de toute façon euh, en en mandin dañuy naan toujours un leader c'est je dirais le tas d'immondices mooy poubelle bi un leader un chef <laughs> loolu la ñuy voilà ñu un leader foofu la ñuy sànni li lu bon yépp lu ci bon ci àddina walla comportement ci leader lay jëm toujours mais moom il faut mu am humilité mu am il faut dilater son cœur comme ni mu koy waxee moom pour nga mën a yenu yëpp donc on peut dire que oui effectivement le président euh, il est aussi responsable comme tous les autres mais mënuñu ko nier mënuñu ko jox ah non on peut pas on peut pas dire qu'il n'y pour rien moom sax soo ko ne tu n'es pour rien pour tout ce qui s'est passé dans Rewmi naan non da ngay fen D'accord. Non, euh, donc, euh, ah, toujours dans cette même veine, vous avez parlé d'idéologie, mais est-ce que au-delà des positions idéologiques, est-ce que Guissone Idrissa Seck, il euh, ak yenn un comportement, il de a yi mu jël moo ko conséquences, ba léegi parce que gis nañ ne Guissone 2007, il y a ak palais seeti Ablaye Wade jóge woon ci adversité bu métti ñu tuddee woon ko fi sax audience du midi 2000 mhm. euh, bu eh, bi ñuy après Covid 19 mu defaat noonu noonu ak Macky Sall. mburoog soow ñu jox ko def mburoog soow. mu bettoon Sénégalais te moment boobu noonu Ousmane Sonko euh, moo nekkoon sax ci ginnaaw Idrissa Seck parce que dañoo jógee présidentielle Idrissa Seck jël deuxième boobu. presque sa Seck moo nekkoon euh, chef de l'opposition ñu ngi doon xalaat sax duñ ko ko jox am déet xëy na bu toogoon. doon na téye lu bari doon na mun a def benn écran bu bëri entre Ousmane Sonko ak pouvoir bi mu demee rek Ousmane Sonko dafa ñëw positionné est-ce que gisoo ne Idrissa Seck quelque part tortuosité moo ko xaw a perdre. fi nga mujjee nii foofu laay commencé bi nga ne bi mu demee il a laissé l'espace à Ousmane Sonko loolu franchement c'est une très belle lecture de l'espace politique sénégalais loolu dëgg la su fa nee woon du demee nii. peut-être que li yàlla binde bindi na ko ba pare mais affaire yi du ñu dox noonu bon loolu moom tu as parfaitement raison alors en ce qui concerne euh, ces rencontres avec Ablaye Wade puis le Mbour ak Sow comme ni mu ko waxee léegi il nous a expliqué qu'il était parti de bonne intention il nous a expliqué qu'il était parti dans l'intérêt du Sénégal il nous a expliqué que xuloo mun na am mais quelque part juboo moo war a mujj il nous a expliqué tout ça et dans des circonstances où on était par rapport à Abdoulaye Wade il y avait une intervention d'un chef religieux mu ne mënu ko bañ dans le cas de Macky il y avait une circonstance atténuante qui était la situation de Covid un responsable et un homme politique qui veut la paix qui veut qui aime les Sénégalais nee ne mënu ko bañ dont acte dont acte mais au-delà de tout ça boo defee évaluation oui effectivement ñaar acte yooyu rey na ko ñaar acte yooyu ça a eu des conséquences sur le mode de fonctionnement de Rewmi parce que man am na ay xarit nga xam ne dans dans le deuxième cas notamment bi mu rejoindre Macky foofu la sama sama xarit yu bare bay Rewmi jusqu'à présent ils ont réew Rewmi à cause de cela. Donc, analyse Bob, c'est juste. Bon, maintenant, est-ce que c'est une tortuosité ou pas Je ne vais pas entrer dans des jugements de valeur, mais je m'accroche à l'imouach. Néna, il était parti dans de bonnes intentions, dans l'intérêt des Sénégalais et au gré de tout ce qui se passait comme phénomène plus ou moins déplorable à ce moment-là. Mais malheureusement, les conséquences lui ont été fatales, nous ont été fatales. L'ol Euh, ñu avancé nga jóge réew mi euh, léegi nga rejoindre ñi nga nekkaloon foofu parce que am nga possibilité dem ci Awale docteur Abdourahmane Diouf. Mhm. Euh, seen camarade loon amoon nga possibilité dem ci Agir Thierno Bokum. amoon nga possibilité dem ci Déthié Fall PRP am nga yeneen tas de possibilité mais da nga décider créer mouvement tuddee ko Sénégal au cœur pourquoi choix boobu. alors pourquoi le Sénégal au cœur day je vais je vais d'abord répondre lu tax demuma ci ñeneen ñi wala lu tax ñeneen ñi ñëwuñu ci man parce que c'est vice versa ñoom ñëpp xam naa leen te ñoom ñëpp xam nañu ma Et on a cheminé ensemble, on a fait des meetings ensemble, on était très bien. Ce sont jusqu'à présent, entre, je vais dire, ce encore des amis si l'amitié consiste à se penser, à se voir, et quelque part à échanger même si le temps est parfois élastique d'accord donc ñoom ñëpp dama am jàmm ak relation oui c'est des gens avec lesquels tout se passe très très bien bon euh, ah, wax dëgg yàlla am na ñi ma ko contacté am na ñi ma contacté mais ce qui s'est passé c'est que après élection euh, avant élection 2024 sama coordination bi Marsassoum ak sama coordination bi Paris ils ont commencé à s'éloigner de moi quand je leur parlais de Idrissa Seck. mooy li nga waxoon sànq. li ma waxoon sànq. sama coordination j'ai perdu des gens yi nga xam ne matin midi soir ñoo nekkoon quand j'ai fait ma campagne à Marsassoum <laughs> ci weer koor tàngaay bu métti bi laa jógee yi ñëw je crois que Casamance côté boobu yëpp man rek maa def campagne. maa def pour réew mi pour réew mi pour Idrissa Seck. maa defal sama t-shirt yi fii kenn moom a dimbali mooy Jacob. Jacob Koulibaly États-Unis moo a dimbali ci yooyu. donc j'ai quitté la France ma ñëw def campagne. et je m'attendais à le voir en Casa en parce que c'est ça qui était dit malheureusement gisuma dara mais n'empêche def naa sama campagne. dafa campagne ba pare sama gars yi nee ma bon tu as vu tout ce que tu as investi ici personne ne t'a écouté. kenn dimbaliwu la léegi neewoon nañu la ne on va arrêter avec Rewmi léegi c'est fini. c'est acté c'est acté. ils me l'ont dit à Paris balaa may ñëw ils me di dit ici. dama mujjee def benn vidéo pour faire appel à mes amis à ma famille parce que j'ai une grande famille la famille les les Diakhanké les Mandeng que je connais à Dakar ici à Kolda à Bignona donc dama mujjee def benn vidéo pour les appeler que en votant pour Idrissa Seck man la ñuy soutenir. j'ai fait une vidéo pour partager ça mais ça n'a pas servi à grand chose parce que ñoom ñëpp seen xel. <laughs> demoon na Pastef demoon na Pastef bu bu yàgg. ils avaient déjà tourné je ne pouvais rien. parce que nit mun nga ko téye nii physiquement mais munoo ko téye par les idées munoo ko mm-hmm. téye par ndax xalaatam. munoo téye yooyu donc ma bàyyi leen. et après quand on a eu cette réunion là après les élections ils m'ont dit li ñu la waxoon moo nekk nii. newoon nañ la ne nañu bàyyi réew mi depuis longtemps nga bañ nga ne da ngay dem ba idi jusqu'à 2024 léegi on est en 2024 y a une seule chose soit on se rapproche du parti au pouvoir on le soutient soit on va dans l'opposition ma ne leen voté leen. kon vote pas dañoo voté. ah oui dañu voté. dinañ ñëw si léegi ñëwal ci mouvement bi la création du mouvement. du coup c'est là que bi ñu voté ba pare ñu ne on crée un mouvement d'abord. mooy lii nii. le Sénégal au cœur donc on a créé le mouvement. la deuxième phase mooy kañ la ñu àndal foofu la voté bi am. bi haute voté bi am presque à 80 pour cent 85 pour cent ñoom ñëpp nee na non no non on va aller vers. le parti au pouvoir le PASTEF. quand on leur pose la question lu tax certains parlent certes des compétences mais certains parlent et comme beaucoup de Sénégalais d'ailleurs li Sonko souffrir. comment Pastef a souffert pour arriver au pouvoir ñu ne yooyu c'est quand on doit être un homme d'État on passe par ces chemins tortueux là donc na ñu dem ensuite on verra selon leur capacité selon leur compétence comment les choses vont se injustice bi taxoon nga soutenir Idrissa Seck même injustice bi ñu teg Ousmane Sonko moo tax ngeen décider pour soutenir ah, Pastef moi personnellement honnêtement moi j'étais un anti Macky 250 pour cent. <laughs> Moussa anti Macky ngoog Moussa loo ciy wax. je parce que man dama def ay contributions. j'ai fait des des sorties sur euh, WhatsApp j'ai participé à toutes les manifestations à Paris contre maki Sall devant le consulat de à à Barbès partout. sous la neige sous la pluie j'étais un anti Macky parce que ni mu doon doxalee dëkk bi. on n'avait pas besoin d'être agrégé pour voir la vérité donc man Macky moom non je dis souvent à mes amis d'ailleurs que c'est un président impérialisé qui est devenu un empereur présidentialisé <laughs> c'est fort xam nga loolu moo ñu gën a grave c'est fort ces mots sont forts hein oui mais je l'assume je l'assume il est devenu un truc suñu ma nee euh, digression digression juste suñu ma nee il a travaillé au Sénégal il a fait des infrastructures il a fait ceci il a fait cela ma ne leen eh est-ce que vous connaissez Hitler S'ils me disent oui, ma ne leen mais Hitler, c'est, il a construit lui aussi et pourtant ça l'a pas empêché d'être un dictateur. donc infrastructure yooyu non donc c'est ça qui a fait qu'on a choisi PASTEF ñu ne daal euh, ce que Sonko a subi là c'est vous savez Macky a été le directeur de campagne de Macky de Ousmane Sonko pour beaucoup de Sénégalais. effectivement c'est Macky qui a été le directeur de campagne. parce que li mu doon def moom peut-être qu'il n'en était pas conscient mais il était en train d'ouvrir un boulevard à Sonko dans le cœur des Sénégalais te lu dugg ci xol fu ne lay jaar. fu ne lay jaar te gaaw du yomb nga dindi ko ma ah. loolu moo moo loolu moo tax. gaa yi ñëpp ne Pastef waaw par rapport ak sa mouvement rek wax nga ko léegi Moustapha Dramé yaa ngi créé yaa jiite mouvement bi ñuy wax euh, le Sénégal au cœur mu nekk euh, tur bu significatif. tur bu ah. vraiment am sens trop wax dëgg yàlla. dégg nañ la bon nga wax léegi ni nga jógee réew mi di la fa génne wax nga tam ne vous avez combattu farouchement le président Macky Sall tuddee nga sax bon sa bopp anti Macky Sall créé sa mouvement est-ce que tey gis nga ne mouvement yi. mun nañ apporter grand chose ci politique yi quand on sait que souvent mm-hmm. parti politique yi ñooy gën a nekk en avant tey jii sa mouvement le Sénégal au cœur ban posture lay taxawee ci ci ci échiquier politique bi. très important baal ma de da nga ma waxoon tu m'avais parlé de mes amis là Déthié ñoom ci. voilà nee naa la am na ñi ma contacté. effectivement mais ça n'a pas abouti am na ñi nga xam ne mm. amuñu. kii euh, y' a pas eu de voilà. amul link boobu voilà amuñu link par hmm. rapport à la vie politique. Hmm. donc moo tax ma bàyyi leen noonu. voilà pour répondre à cette question parce que man du ma daw question. <laughs> mais si l'occasion se présentait why not on verra bien parce que hmm. euh, ñoom ñaar par exemple Déthié et. Abdourahmane Abdourahmane non Déthié et. Thierno Bocoum ils ont été de très bons députés. ils ont été d'excellents députés et ma ngi leen maa ngi ñaan yàlla ñu amaat seen poste vraiment parce qu'ils ont été très très bons quoique mon mon préféré député c'est Guy Marius Sagna bon léegi ma ñëw ci yow wax nga dëgg le Sénégal avec presque trois cent et quelques partis politiques et mouvements c'est trop kenn xamul fu ñuy jëm et d'ailleurs on se demande bien si euh, mouvement yooyu ak parti yooyu il travaille plus pour l'alter, pour la conquête du pouvoir ou tout simplement pour avoir une identité, une identité politique dans l'espace politique. C'est pas pour la conquête du pouvoir wax dëgg yàlla man su ma la lii dama ko def pour conquérir la le pouvoir au Sénégal en tant que président damay fenn mais par contre dañu soxla mouvement yi quand on a des ambitions locales dañu soxla mouvement yi quand on a envie d'inscrire son identité dans une dans un mouvement plus global ou un parti plus global ou dans une coalition nga dem yow kenn baax na mais soo leen demee en groupe c'est encore plus représentatif donc man dans ma conception c'est ça léegi il y a deux choses c'est que comme dañu bare forcément dina am ay coalition bon coalition il faut voir ça euh, la théorie des coalitions il faut la baser sur deux deux deux, deux visions première vision bi maanaam mooy coalition euh, conjoncturelle ñi nga xam ne dañuy xaar ba problème posé ñu dajaloo def coalition pour atteindre un objectif par exemple à l'approche des élections coalition bi ñuy définir c'est pas des c'est des coalitions contre nature contre nature contre nature je vais exagérer mais en tout cas conjoncturelle <laughs> conjoncturelle ça veut dire que ça a une visée électorale ça n'a pas forcément une visée politique loolu moom je te le je te l'accorde totalement donc yo boo yooyu coalition am na peut-être que lii ci la bokk j'en sais rien mais en tout cas nous on a décidé de soutenir le parti en pouvoir parce qu'on pense qu'il peut réussir sinon parallèlement l'autre versant c'est ce que j'appelle les coalitions structurelles les coalitions structurelles en général dañuy ne soit par une idéologie dañuy ne soit par une appartenance par rapport à un projet politique à une vision programmatique ou par rapport à des amitiés ou en tout cas des appartenances historiques qui existaient depuis très longtemps mais ñi nga xam ne dañ koy réchauffer waat pour mu génn waat pour mu donne une coalition pluto structurelle loolu souvent day am avant les élections ñu continuer ou alors mën na am après les élections mais il faudrait que mu dépasser au minimum une alternance comme Benno Bokk Yaakaar xam nga Benno Bokk Yaakaar la coalition elle préexistait mais am na ci dugg après les élections. Mais Beno Bokoyakar a quand même tenu deux alternances. Donc presque c'est devenu structurel. Mais gis voyez, bu on est structurel, quand on perd le pouvoir, on perd tout en même temps. C'est ce modèle Beno Bokoyakar, on a tassaro petit à petit. Il y a une coalition euh, structurelle. Il y a, une, il y a un troisième versant que l'on peut voir, c'est ce qu'on appelle, ce que j'appelle moi les coalitions contextuelles contextuelles. Les par exemple, le contexte Euh, Macky Sall ak Amadou Ba dañu euh, kii euh, séparé mm-hmm. tu vois et pourtant ils étaient dans le même mm-hmm. parti mm-hmm. et ils sont ils étaient dans le même truc donc le contexte a fait que ils se sont séparés et c'est le même contexte qui va faire que dañuy dem élection séparément mais loolu en général ça crée des rivalités ça crée des conflits ça crée xëccoo lay andi quoi tout simplement mais li nga wax moom pour résumer le tout oui wax nga dëgg il y a trop de mouvements les identités sont multiples les appartenances sont plurielles kenn xamul kenn mooy kann sauf quand sauf quand on se retrouve à l'assemblée ñu war a défendre quelque chose ensemble foofu rek la ñu mën a xam ne kii fii la bokk kii la bokk mais sinon c'est une vraie mayonnaise yaag sa mouvement jël ngeen décision soutenir le parti au pouvoir le PASTEF te seetlu nañ ne PASTEF semble être euh, réfractaire à toute idée d'entrisme politique est-ce que ragalu leen bu ngeen demee foofu Pastef bañ leen a tëjal leen ay buntam. c'est vrai mm. loolu la ñuy wax en général. Mm. c'est ce qui se dit euh, il se trouve que pour le moment contact yi ma am avec Pastef ça s'était bien passé. Mm. sur le plan local à Marsassoum maa ngi leen nuyu di leen sant d'ailleurs. quand j'ai proposé de travailler avec eux. Mais, mais avant ça, d'ailleurs, la y avait des rayons, quoi. Il y avait, il y des rayons parce que Nima Bokol Réumi, tous proches de PASTEF. Donc, euh, on sentait quelque chose. D'accord donc, nous, à Marsasum, on a travaillé, on a discuté, on, ils, ont, ils, ont trouvé qu'on peut travailler ensemble. Ils ont trouvé que l'identité Bignoré et puis leadership Mayoré Marsasum, peut-être ça pourrait servir. est-ce que c'est niveau des instances est-ce que lu ñu ci wax. voilà mooy deuxième partie bi. Hmm. côté local c'est bon au niveau des instances on a eu une rencontre avec euh, Khoudia euh, Biram Khoudia Lo et Kaba ils sont d'ailleurs tous sur la liste je crois sur euh, la liste euh, nationale de de PASTEF pour les les élections législatives leur siège. Hmm. dañ demoon foofu waxtaan ak ñoom. Hmm. on a été bien accueillis. on a été très très bien accueillis. Ils ont dit que euh, notre, identité, notre façon de faire ou ce que nous sommes les intéresse. Ils vont soumettre à la direction et puis on verra comment travailler ensemble. En tout cas, pour le moment, nous, nous avons été très bien reçus. On n'a pas eu de problème. Mais aussi, c'est parce que nous, on n'a rien <laughs> revendiqué, en tout cas pour l'instant. Question boobu laa bëgg a parce que euh, ñu ci ëpp bu ñuy soutenir parti au pouvoir soit dañuy xaar poste Euh, nga ne continuer peut-être. non li nga wax ni dëgg la moi j'ai rien demandé. je suis demandeur de rien en tout cas je vais dire pour l'instant parce que yàlla rek xam mais wax xam nga wax naa la ne léegi que j'étais je suis resté à Rewmi de 2004 à 2024 laa musuma laaj dara. je n'ai jamais rien exigé te li ma doon def rek je le faisais avec mon cœur je le faisais pour l'amour de du président Idrissa Seck parce que je savais que c'était un homme d'État. D'accord Donc, ni la mêle. je ne sais même pas si la politique peut encore m'apporter, me donner quelque chose que Dieu ne m'a pas encore donné. Je na sais rien. Bon, amé, comme nous l'avons dit, ci ci soose bu ñaa la <laughs> bu ñaa voilà su su amulee tamit ma ngi sant yàlla bu baax quoi mm. franchement mm. maintenant si ça arrive j'ouvre les portes jou tou parce que dama ànd ak ay nit et j'ai au moins euh, une idée dans ma tête mm. j'ai une volonté dans ma tête j'ai une ambition dans ma tête man ñu bañ ma jox dara j'accepte à 250 pour cent mais ma commune Marsassoum ma commune Marsassoum maa ngi leen ñaan vraiment nañu gestu foofu pour faire de Marsassoum une vraie commune mm-hmm. sur le plan de la sante poste sante bi war nañ ko changer mm-hmm. le lycée de Marsassoum jusqu'à présent il y a 22 abris provisoires et ceci et ceci et cela comme man ma am dara bañ a am dara c'est pas du tout un souci si on s'occupe de Marsassoum billahi je ferai tout de mon oh. côté pour que ce pastef là à Marsassoum et même dans la région en tout cas j'ai la capacité <laughs> au moins influencer de influencer toute toute la communauté jaaxaan partout fu mu nekk pour ñu topp ma loolu moom je suis prêt à le faire donc mouvement bi moom c'est pour ça on a dit le Sénégal au cœur parce que ce que nous cherchons c'est tout simplement ce qui peut satisfaire les Sénégalais mouvement bi base bi Marsassoum la nekk quoi voilà que cœur bi base bi bon on a on a mis le siège à ici à Sacré-Cœur 3 mais base bi Marsassoum la et deuxième base bi c'est la diaspora à Paris d'accord alors ñu ñëw ci troisième ponk Moussa bu dee amoo looya ñu ñëw ci troisième ponk bi amoo loo ci kii. waaw acca demal ci troisième ponk donc ñu ñëw ci troisième mm-hmm. ponk bi monsieur Dramé mooy actualité bi. Mm-hmm. Euh, c'est agité par les comme ni nga ko waxee nee nga doo wax coalition contre nature mais on a vu des gens yoo xam nii dugal nañ ci liste yoo xam te ni seen position ñoo ngi koy kaas am nañ coalition yoo xam te ni démb ay adversaire lañ tey booloo nañ. politique boobu noonu sànq yaa ngi doon wax idéologie ci politique tey ba nga boo gisee ñi nga xam ne démb ñoo doon xuloo tey ñu ànd ñi nga xam ne bokkuñu sax. idéologie ñuy défendre ñu bokk coalition euh, loolu noo ko jàngate ça ça me renvoie un peu à la théorie des trois coalitions que j'ai fait tout à l'heure mais je vais pas revenir mais damay dem directement sur un plan plutôt pragmatique gis nga dañ naan en général que tous les grands conflits se règlent autour d'une table mais quand les grands conflits politiques se règlent autour d'une table pendant une période d'élection, c'est que forcément, il y a un problème de positionnement, il y a un problème d'intérêt, il y un problème de personne. loolu mënut a ñàkk duñu ko wax mais loolu mooy dëgg soo gisee gars yi ñu xeccoo nii pour être dans telle place telle place telle place est-ce que loolu yëpp c'est pour défendre le Sénégal non ñu bare dañ ciy dem parce que tout simplement ils ont envie d'avoir les mêmes privilèges que d'autres ont eu que d'autres auront mais que eux veulent avoir à ce moment-là loolu mooy dëgg. des mais oui mais oui dans certains cas loolu la. dans certains cas loolu la parce que législature bi passée franchement j'ai vu de ces députés su ma toogee sama télé euh, ci kanam <laughs> télévision bi je regarde les débats à la télé ma ne mon Dieu qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ñooñu on peut pas me dire qu'ils ont apporté quelque chose la construction du Sénégal. Ni en théorie, ni en pratique, ni en social, ni en économie, ni en finance, ni même quelque chose d'autre. Donc den nous avons justement au gré du président, au gré du chef, pour leur intérêt tout simplement. du gis nga bi législative bi jeexee est-ce qu'on les entend. jeex na si jeex na doo leen dégg mukk même à leur base là-bas kenn du leen dégg c'est fini ils ont déserté c'est valable pour les députés c'est valable pour les ministres je ne sais pas bon léegi nag li nga wax nañ je je je souscris totalement là aussi ça paraît comme une question mais c'est notamment la vérité mooy daal en général et dans la plupart des cas dans la dans la construction euh, dans dans la pendant la période électorale li xew mooy c'est des débats ou même des combats de personnes des combats pour l'intérêt personnel et moi j'ai une chance dans ma vie c'est que quand on a la double culture sénégalaise et française, en général, ça te permet de faire le va-et-vient, comment on fait la politique, et faire et de faire des comparaisons. Entre parenthèses, je suis aussi conseiller municipal et président d'un groupe majoritaire dans ma commune en France. Ah, super. Voilà. <laughs> Moussa, donc. Voilà, vous êtes un acteur politique clé. Vous savez politique, les mécanismes, les mécanismes politiques et tout ça. moo gis nañu élection yi di waaj nii coalition yu bëri na ay parfois coalition contre nature ñoo xam ne adversité bi ñu amoon par le passé soo ko xoolee sax da ngay ne doone woon nii possibilité de retrouvaille mënatul am sax daje nañ tey instinct grégaire boobu noonu ñu gis ci acteur politiques yi nan nga ko jàngate bravo moo bi nga utiliser nii instinct je crois c'est bien adapté ouais c'est un instinct politique et à la limite on peut même dire un instinct animal non mais xam nga mun mënatuñu nax sénégalais yi c'est ça la vérité et ça ça reviendra tout à l'heure à la question wala yow yaa ko posé daal que Pastef a voulu tout mettre autour de son nom bañ a kii mais boobu je viendrai tout à l'heure mais li nga wax ni léegi quand je vois certaines coalitions duma leen tudd <laughs> nga xam ne demb c'était euh, chien et chat ñoom tey ñu gis leen comme si ce sont des amis d'antan des amis historiques des gens ou des partis ñi nga xam ne dara boole leen ñu ne daal nañu booloo am ay députés pour contrecarrer le parti au pouvoir à ce limite d'ailleurs à ce sujet-là je dis tout simplement aux Sénégalais moytu leen si vous voulez que vos problèmes soient réglés donnez une majorité à ce pouvoir-là parce que kenn mënul liggéey soo amul matériel te matériel bi mooy assemblée nationale ça c'est une parenthèse donc <laughs> dama doon déglu benn kii euh, benn journaliste il parlait justement de ces coalitions la fu ma teddoon j'ai dit mon Dieu mon Dieu est-ce que ñiy def lii quand ils se retournent dans leur li ou quand ils voient leurs enfants ils se disent vraiment qu'ils sont en train de faire ça pour le Sénégal est-ce que dañu yaakaar ne ils sont en train de tromper les Sénégalais ou alors ils se trompent eux-mêmes dama lay wax dara gis nga il faut que les politiciens ou bien les hommes politique parce que tout le monde n'est pas politicien il faut que les hommes politiques politique refusent d'être des politiciens éphémères maanaam boo jëlee engagement engagement bi dafa la war a yóbbu fu sore daf lay jël fu sore mu yóbbu la fu sore ci diggante bi da war a nekk nit danga war a nitee il faut que tu te dis à tout moment je suis un être humain qui doit travailler pour les êtres humains nga bañ leen a yaakaar ne ay mbaam la ñu et c'est ça le danger dans ça donc j'ai comme l'impression que la plupart de ces gens là dañu yaakaar ne sénégalais ñi comprendre wuñu la alors qu'ils ont compris ils ont compris man fi ma jógee nii Marsassoum quand ils ont parlé de certaines coalitions dañu naan waa ñaar ñii lu ñuy de sentre la vérité et le mensonge. leer na alors je pense que euh, gars yi nee nañ def nañ temps bi alors ñu bàyyi la lan mooy euh, message bi nga bëgg a à l'endroit de président Bassirou Diomaye Faye le premier ministre Ousmane Sonko mais également les populations de Marsassoum bi nga xam ne tey mun naa ne yaay seen porte-parole mu nekkaale sa dernière intervention. ben au président Diomaye et à son gouvernement et au premier ministre je leur souhaite beau plein de Je voudrais juste leur dire une chose. Ils viennent de loin. Ils ont traversé le désert. Ils sont passés par les méandres fu ñu jógee sori na trop métti na trop et à travers ñoom il y a des blessés il y a des morts tout ça pour la conquête du pouvoir parce que ils veulent le faire pour les Sénégalais ils veulent le faire pour le Sénégal donc on peut leur souhaiter tout simplement une chose c'est d'avoir une bonne santé une longue vie et de réussir cette alternance-là, de réussir tout ce qu'ils vont entreprendre. Je les félicite et je leur dis bon courage. Et n'oubliez pas une chose, <coughs> quand on ne sait pas où on va, on n'oublie jamais d'où on vient. Mais je sais que vous allez réussir. Je sais, je Parce que quand je regarde la manière dont les choses se passent en disant la vérité contre le mensonge, je me dis que ça va aller. Au Marsa moi, je leur dis tout je ne vous ai jamais trahi de toute ma vie c'est pas maintenant que ça va commencer et si je dois mourir un jour quelque part bëgg naa mu nekk Massassoum et pour votre cause donc comptez sur moi je ne vous lâcherai pas et je n'ai jamais rien promis mais j'ai jamais rien trahi non plus yéen a ma a moom je suis à vous donc pour vous pour le reste j'avoue je vous remercie vous de m'avoir invité invitation bi neex na trop Moussa avec tes questions pertinentes là. <laughs> non c'est inchallah on aura l'occasion même à distance. Merci. Euh, pour le journal mm, l'évidence. Mmh, parce que je vois gis naa say contribution yi ngay def lire naa ko j'ai pu euh, quelques-uns comme même si le temps nous a pas permis lire lépp jël nañ lu bëri te inchallah dinañ couramment di publier mmh. say contributions pour Sénégal Moussa ñu bàyyi la nga nuyoo aussi. waaw Sadio je vous remercie vraiment l'émission a été formidable je remercie également monsieur Moustapha Dramé bon qui a accepté de se prêter à ce jeu de questions-réponses vraiment répondre na avec exhaustivité à toutes les questions te loolu vraiment yombul quoi wane na ne acteur politique la boo xam ne war na sénégalais yi daal war nañ ko bàyyee xel bu baax a baax quoi jërëjëf. Euh, monsieur Dramé euh, man li ma ci yokk mooy il faut sortir couramment wax ak sénégalais. parce que la jeunesse les sénégalais souvent on a on est habitué à des gens yoo xam te souvent li ñu lay wax ci plateau wala c'est des intérêts alors que franchement vous êtes pertinent dañ lay ñaanal yàlla na la yàlla bàyyi fi ba ci kanam a kanam. Mm-hmm. mbébét bi nga am pour sa commune Marsassoum. ak plaidoyer yi mu fi def yàlla na ko autorités yi dégg taxaw leen. amiin incha allah xam naa dinañ opportunité toogaat gën a échanger waat alors chers internautes de l' TV lii lañ leen indiloon ci premier numéro la grande question format débat euh, di leen jox dig daje ba beneen yoon ak beneen numéro incha allah ñu ànd ceeg suñu chroniqueur Moussa seen jërë ngeen jëf. et à très allah.